li ñu def ko fenn ci Sénégal. yooyu le kaddu mbokkum taalibe mu ndogoo ci jumaay Tuubaa ji ba noppi moo ko doon yëkkati. mu mel ni kon daayira mu xaddimatul xidma ñi ngi liggéey yàlla ci jaami yàlla yi. ni ñu ko baaxoo di defee at mu jot su weeru koor gi teroo ñuy amal ay ndogo yu mucc ayib ngir dimbali ci mbokki jilit yi nga xam ne waxtu dog danañ fekk ci wet yooyu le sëriñ Ablaye Diop di dellu ci liggéey bu am solo boobule. liñ ci jublu nag du lenn lu dul. dimbali néew ji doole yi rawatina ñi nga xam ne waxtu dog leneen leen di fekk ci jumaa ji ak li ko wër ba bu ñu fi ñëwee mën a dog seen koor te du ñu am benn jafe-jafe ndax ku nekk xam na euh, Touba du tàggalikoog mbooloo benn yoon rawatina ci weeru koor ziar yi day bari jumaa ji képp ku ñëw da nga ñëw ci jumaa ji te xam nañ ni itam Touba population bi fi nekk bari na bari goo xam ne euh, bu waxtu dog jotee ñi di marché Ocass di ñibbi ñenn ñi jógee ci li wër euh, dëkk bi ñenn ñi ñëw fii ci njàng mi nga xam ne mooy xew ci te sëriñ bi kon waxtu woowu bu waxtu dog jotee ñu war a jaar ci jumaa ji euh, war nañ fee mën a jaar dog seen koor euh, ba jàll te ñu am benn jafe-jafe loolu mooy li nga xamante ni moo waral ñu ñu ñu amal activité yi nga xam ne moo nekk ci koor gi loolu nag dañ ko boole ak ay jotaay xam-xam muy ay waxtaani diine ay conférence trente conférences yoo xamante ni chaque jour danañu amal benn yoo xam ne ay thèmes d'actualité dañuy wax ci li xew ci jamono fi jamono toll yenn itam day wax ci fiq ci xam-xam ci ay njàngale lu mel ne bi euh, ngeen dajeel tey li nga xam ne mooy wax ci euh, wàññi ci julli ak yokku ci julli ak ni ko jullit bi defee loolu tam lu am solo la ak yeneen jotaay yoo xamante ne ay fatwa la ay laaj yu tontu yoo xam ne euh, mbokk taalibe yi ak mbokk ji dañ ko mën a jariñoo loolu nag def mbégte mu rëy ci mbokku taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ci jumaay Tuubaa ji ngir dundal fii weeru koor gi le chaque année ñoom dañ fi faral def ay xéwal xéwal yu yu yu bakkane yoo xam ne même boo nekkul sa biir kër sa doo ko fa am moo tax à chaque fois bu ñëwee teewlu waxtaan wi ba heure bi ñu ñëw toog euh, ànd ak ñoom bokk toog ak ñoom ndogu ba ndogu jot ñu ndogu bu ñu paree julli timis mën a eggaat sa daara jot. man ndogu naa fi ñetti fan ndax màggal seen sooy bu laa ñëw ba léegi dinaa waaye li ñuy def nii wax dëgg yàlla liggéey la boo xam ne ñëpp war nañu soroy ndax fi ñu toll nii bu ñëw fii di nga di nga di nga xam ne Serigne Touba du moromu kenn ci jumaa ji kon ñu ngi leen di sant bu baax baax ci lii nga xam ne ci ndigalu Serigne bi lañ ko defee ndax lii daal man kawe man Dakar laa nekk lii daal mosu ko gis kon ñu ngi leen di ndokkeel di leen sant bu baax a baax ndogu yii nag daayira mu xaddimatul xidma ñi ngi ko tàmbale woon ci atum 2005 Serigne Ablaye Diop di ñu xamal ne booba ak léegi yokkute gu rëy am na ci waaw ak yokkute am na ci ndax ci bi ñu koy tàmbali ñi fi daan nekk ci mbooloo daawul ma sax lu personnes bon donc nga xam ne budget année ba yëpp watul woon 1 million 900 la woon euh, daaw suñu budget àgg na ci 70 millions parce que li fi fréquenté li fi dogee euh, ko gisee wet di fété kër seigne Saliou ci yok bi euh, kër seigne Fallou non la wër a jumaa ji ba wet gi féetee kër seigne Saliou kon loolu xam nañ mbolo mbooloo mu baree baree bare ndax consommation yi liñ fiy jënd ci liñ fiy consommer ci mburu par par bis mën na 2500 baguettes euh, bon bu dee sucre lu mat 6 sacs lañuy utiliser par bis loolu boko waxe rek da nga xam mbolo mbooloo mu bari moko ko moo ko kon donc lu mat 5000 personnes ñom ñoo jëfëndiko jëfandikoo nga xam kon daw buñ ci défé 70 millions ren itam euh, yaakar nañu dañu ag 100 millions loolu lépp nak mi ngi joggé ci poosu talibé rek. Euh, social la boo xamante ni poste talibé rek kilifay diine yi tàmbalee ko Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér moom moo ci jëkk a dugal ab barkeelam mboolem njabootu Serigne Touba gi commerçant yi opérateur économique yi diaspora bi cellule Moukhaddamatoul Khidma yi nga xamante ñoo nekk ci biir biir Sénégal ak yi nekk bitim réew ñoom ñëpp kenn desul noonu la ñuy jël def ko ci liggéeyu koor bi nga xam ne daanaka commission yi ko seq bu ñu xoolee lu mat 550 personnes commission yooyu ñooy liggéey ci euh, corps bi 550 personnes yoo xam ne ay soxna ak ay góor ñoom ñoo fi nekk di di di assurer li nga xam ne mooy organisation bi ba ci sécurité bi ba ci naafile gi am na ay innovation yu ci am itam ndax euh, loo li ñuy consommé ci ay mburoog yu mel noonu bari na ak yenn xeeti gato yeeg yooyu tax na ñu amaloon benn boulangerie boo xam ne fii lañ ko installé ci biir jumaa ji ngir mu mën a jàppale euh, ñi nga xam ne ñoo yor wàllu boobu ci ci ci wàllu defaru mburoog ay gâteau ay lu mel ne ay pizza yu mel noonu nga xam ne dañ koy yokk ci ndog yi ngir mu gën koo taaral gën koo muriteel mu doon liggéey bu am solo te yaatu waaye itam doon liggéey boo xam ne li muy laaj ci ay koppar dafa takku lool loolu tax ba ñoom kilifa yi ak mbokki taalibe yi ñu ci woo bépp taalibe boo xam na la ko nga a jàpp ci liggéey bu Moukhaddamatoul Khidma bii yi nga xam ne dañuy def seen jëf ci weeru koor dañu xam lii mooy alal ndax fii lu ma junni nit da koy ëpp yoo xam ne dañ alal am nañu xewal lii rek mooy jëf lii rek lañ ci a def ndax lii ku ko def rek nga ko yàlla defal nga ko yoon te sëñ la ko bëggee sëriñ Tuubaa léppam jàng la jaamu yàlla wax lu baax ak dimbale nit ay weeru koor nga jël ndogu yu mat yi nga xam ne fi fi ne nii lii ñu ndogoo fii lu ci bare bare bare na ñoo xam ne ñu ngi seen kër duñ ko fa ndogu kon loolu wax dëgg yàlla nekk la lu jàngal bu am solo ñu bari ñu ngi ndogoo seen kër di ñuy ndogoo fii duñ ko ndogoo seen kër kon daayira bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax nag yoonu murid yëpp nga xam ne koo xam ne murid nga rek nga xam ne yaa ngi yëg sëñ Tuubaa da nga xam ne lii daal jëf sa ñaq moom moom bu ne war na war na di di sàkku mbir yi ndax uh, borom alal ñi ngi fi te li liggéeyal sunu borom la ndax uh, nga ndogal benn jullit rek moom buy xam uh, tuyaab yu nekk si biir kon ñu ngi si ñaax ñëpp képp koo xam ne nii sunu borom may na la xéewal ñu ngi ñaan nga ñëw jige daara ji jàppale leen si si liggéey liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi daara Muxaddamatul Xidma fi muy liggéey ci jumaa ji day lépp lépp ñëpp du lenn kenn moo tax lu ñu fi def rek dañ koy bëgg a bokk ak mbokki taalibe yëpp ba tax na ni ma ko waxee mbokki taalibe yëpp ñi ngi ciy jàpp waaye ñu ngi leen di gën a lancer appel ñu gën cee jàpp bu baax a baax a baax ndax liggéey la bu am solo boo xam ne defe lu baax baaxee na fu ne waaye jàpp nañ ne defe ko fii ci Touba defe ko itam ci barab bi la gën a baaxee kon ñu ngi ciy tàllal loxo mbooleem mbokki taalibe yi moo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew gën cee a dugal seen ndax jëf ju la joo xam ne fi ñu koy def fu baax la ñu ngi koy def itam ñu ngi koy defal itam yoo